L'association des boulangers de Touba ont, à l'occasion de ce 1er mai, fête du travail, organisé une marche pacifique, marche lors de laquelle ils ont brandi des pancartes sur lesquelles on peut lire leurs revendications, entre autres absence de contrat, embauchement, l'absence de versement de la caisse de sécurité sociale. Toutes ces préoccupations ont été étalées devant le sous-préfet de Ndam. Nous constatons que depuis le plus de 218 boulangeries, dont 2000 ouvriers, travailleurs, mais les conditions de travailleurs ne sont pas à accomplir, ni embossement, contrat, bulletin de salaire, caisse sécurité sociale, congé, repos, IPRES. Les ouvriers demandent à l'État les formations professionnelles avec les moyens de finance et les projets de l'État. Mamadou Mansour Diallo, sous-préfet de Ndam, a accusé réception du mémorandum de ses boulangers de Touba. Il a proféré que toutes ces revendications sont légitimes et le mémorandum sera transmis à qui de droit Le mémorandum qui souligne en fait euh, les manquements dans votre profession. Vous êtes les boulangers, n'est-ce pas, de la ville sainte de Touba. Euh, ce, sur ce titre, nous magnifions ce comportement-là. En tout cas, ce que je peux dire, nous ferons de notre mieux. Et tous ces manquements Parce que tout ça, ce sont, des, ce sont, ce sont votre, votre, votre, votre, votre droit. Je pense que nous ne ménagerons aucun effort. Nous remettrons ce mémorandum acquis de droit. Les difficultés liées aux conditions de travail de ces boulangers doivent être résolues selon l'avis d'un de leur employeur. lii ñaxtu ànd naa ci ndax 2008 euh, 2008 euh, bi toolu américain yàqoo farine bi yokku na ba vingt mille francs ma koy jënd mille di liggéey mburu mi fanweeri kon bu ñu demee ba jamono bii ñu bëgg nañ yokk mburu bi ndax nangam ndax treize mille douze mille loolu teguñu ko fenn ñu di wax loolu seen bopp la ñu nekkal man li xale yi def nii ànd naa ci maay jëkk a déclaré wu fisc yi ma war a fay yëpp ma fay ko li ma war a état ma jox ko ndax nit ku patriote ku bëgg dëkkam ak ak yelleef da koy fay réewam. L'association de ces boulangers de Touba est sortie satisfaite de seen marche. Elle est optimiste pour le rétablissement de leur droits.